xam nga ne lii métti na ay waay yal na nu yàlla rus yal na nu yàlla rus ta jox leen réew mi yéen ñi di gone ndax ngeen dimbali nu ay waay tasuñ ngeen nu ñu ne sonn nañu sonn nañu ay waay na ay waay na waaw am na benn pas de sànni. bala nga xam ne yàlla foog nga président président waxal ak ma président waxal ak ma amiin amiin amiin amiin. yow des ba raab yow lañ wax. yow lañ wax. ah.

wuyu ma amuñu amuñu kaay sama sama bi di ñëw. waaye yow di wër. ñun ay mag la na kenn du ñu nax kenn du ñu nax leen ma ma côté Médine xaj na fi bàjjen may ma ñun waa Njaareem lañu danoo yor ay identité danoo fas yéene jëlee fi li nga xam te moo nu sonal xuloo wuñu xeexuñu dëgërante wuñu bopp fii Sénégal la bu ñu posoon 10 ans Europe di dox bu Europe posoon 10 ans ñu dox ñu leen dàq dàq nañ suñ jëlee nañ fi suñuy place def nañ suñu lépp yàqal nañ ñu ko place boo xam ne yor na ñetti kër boo ko yëkkatee ka fa nekkoon jóge fa dikk njaareem gii toog rey nga ko ba mu dee. yaa ngi dégg investissement yi ñu fee wane yëpp du dara dara àggu ci kenn du sànge baa su màggal aw tàngoor du ñu bëgg rey. ñun yow la ñuy waxal ma may leen ma li ñuy wax mooy actualité la ñuy wax fi mu nekk nii Ablaye Wade moo yee nit ñi fi mu ne carte moo fii fel moo fii follee ku fi ànd ak ku yuuxul. wala koo xam ni boo ko joxee ñaari junni mu sànni la aw carte kooku sa affaire la ñun doxuñu ci yooyu ñun fi ñuy wax mooy ku fi dox ñu ànd ak yow ku tendeefal ku nekk ñu bàyyi la fi dox suñ dox dégg nga loolu mooy wax bi moom mi Thank you.

Hadi আছে

man la noonu la waaw noonu la waaw waaw. président.

Yeah. <laughs> ñaan a que sëñ Touba yaa ma tax a taxaw fii ci naaju tàng bi bëgg la bëgg a yeggale jàmm ci barke sëñ Touba yoo leen yaakaar seen ko waaw dama doon liggéey sa sol mu boobu sax maa liggéey génn ay temps boobu ci biti am ko raadu li nga bëgg defar rek jàmm ak rek moom réew mi bëgg jàmm ak salaam ak defar si waaw da nga koy jox sa kaw oui oui jox leen ma carte bi lii tam moo ko jëlee moo ko jëlee na ma doon jëlee ko jox après. jëlee ma ko dama ko kii tamit rek moom kay dama ko jox sa kanam rek. xewal rek xewal rek xewal rek. waaw. kon wax ko loolu rek. ak ak jëlee jox. nag maa woowee benn SMS maa xamul numéro bi léeg-léeg day xaw a jafe ah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. maa ngi ñaan yal na yàlla jotale réew mi ci yow. ah. sama daal tee ngi nii dama ne Abdou Diouf ba ni sii maire laa ci doon te ku ma wateel tubaarkàlla maa sha Allah takkuma sama bopp kaw ca kanam rek maa ko yonent bi waaw bàyyi leen Sonko waaye ci biir solution di Sénégal waaw xale yi tàcc leen mën na koo mën na koo laal de xale yi boobu bu bari danaa laal dara de xale yi boobu bu bari na faax Sénégal naa daal ci mi ngi feeñ ci daay dafa mi ngi feeñ ci jéggi daal waaw ah, monsieur le président. ba karam a ngi nii. donc. ana booy mu ne. man ko booy. yow Ibou. bàyyi xool bàyyi te xool ma. Sonko. waxal ak artiste Diourbel. tooyal ak mbuus. dama bëggoon nga jaar ci sëñ bi élément la du samp fi grand sori. Sonko. ñoo ngi lay ñaanal monsieur le président accompagné la parce que ñun soxla ci dëkk bi. waaw xam nga xam nga étape campagne. du gàttal. effectivement Diourbel deux heures trois la fa am. quarante cinq département la a def. dëgg ma dugg see ba léegi. nga dooree ba léegi ku wax na ma sëriñ ñëpp ma soo fi jaarul. waaw dañ fi jaar léegi nag yéen a ñu mën a comprendre. suñ ñëwoon suñ ñëwoon ci cadre tournée. nga xam dañuy ñëw def quarante huit heures Diourbel. <laughs> dañuy seeti kii bi am na ñu bëri ñuy seeti ba pare. mais suñ ñëwee ci cadre campagne nga xam da ngay def caravane romb. fi ne ñu ngi xaar Darou Moussi ñu ngi xaar Touba ñu ngi xaar Mbacké loolu mooy xat-xat bi donc loolu da ngeen koy nangul rek yeggali foofu nag suñu suñu suñu yéene. léegi ordonné daal nag nu ko jëlal. waaw sampal bu lii ak leneen ñëwante ñu ànd ak yow parce que ñun dañoo bëgg a ak yow. joxal joxal ma koy jëlal ko la woo après. dinaa Sonko bàyyi la artiste bi naan Sonko Sonko programme bi damaa bëggoon ñëw ci yéeg ci kaw ñu gàtt sama kàtt bi ñu ko waaye nag wax loolu président buy fekk di ci bàyyi Pape Moussa wala Pape Ndiaye Sopet ñun ku jàng lañ soxla borom bopp lañ soxla ku gëm Sénégal yi lañ soxla ku bëgg Sénégal yi lañ soxla te lépp mën ci yow Sonko élèves yi sonn nañ par trois lañ toog ci condition yi bon nga dugg ci benn classe soixante-quinze personnes yàlla yow lañ ci yaakaar Sonko ku bëgg sonn na Sonko ku bëgg sonn na ñoom ñëpp yow lañ ci yaakaar te yow lañ def président waaw waaw. Calma, faz o que ela tá pegando aí, pô.

Birane Mbow mooy ka mooy kilifa Mbow yi ji. waaw yàlla na yàlla jàppale. jërëjëf yàlla na yàlla jàppale. li li li problème Sénégal daal kenn kenn la ci wax leen lépp xam nga ko waaw ñun boo yi rek a tax ñuy yow yàlla naam jàppal ñi xale yi jàngale fii yëpp yow la àndal ñun ñi seen i waajur ñun ñi suñuy waajur loolu leen tudd ñu ci dugal ñun ñi nga xam ne seen i waajur moom loolu ñu ci suñu doom yi jàngale waaw waaw yaay la kii sant ah kon. yàlla baax na. yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na. ah kon nag sa maam la. ñoom sama waa sama waa kër rek yàlla baax na. dégg nga. ana Daouda ana Daouda. Bac bac bac bac super bac super

Wala mo eh. Ang tinawan like. That's so cool. Let's go.